loolu nag ci la Sëriñ Tuubaa man keneen ku dul moom maanaam jàngal nit ñi gind ñépp teg ñépp ci aw yoon lànk nag gis lànk nag moo fi ne waaye sëriñ bi waxu li mu war a wax lépp wax na ko li mu war a bind lépp bind na ko Sëriñ Tuubaa delluwaat